Doggy. milliardal, moi Sunyu. Live Radio 102.3, le nouveau son. ñuy sonal soo ñaaw sax ñu moo jàkkaarloo moo wax li ngay def doo ko wax li nekk sa xol. oh du du loolu man maa mënul wax je je je t'aime nag boo ko mënul wax jigéen ma nga bàyyi doxaat ndax. Hmm, exactement soo ñaaw sax mu ngi ne bàyyi iya. gor du bari wax waaw mm-hmm. ah, te yakarna bo bo xolé sama kanam di nga xam lan mo nek sama xol lan mo nek sa xol soo ñaa da nga bëgg wax ni da nga maa nopp soo bien sûr que je t'aime Bah, qu'est-ce qui se passe Roger, qu'est-ce que tu fais chez moi euh, Ma fille am na loo il faut nga xam ko Roger xaw ma nu ma la koy mais euh, sama ma Dom comment ça se fait que Roger soit ton fils Qui n'a pas mën que nekkee sa dom mon fils allons-y ok monsieur Suleiman. ok Vous baillez la famille. merci beaucoup. comment ça se fait que Roger soit ton fils Parce que je peux pas comprendre en quoi Roger me donne sa Je ne peux pas expliquer comment ça se fait Djibidi aha Mbijaan Mbijaan xale yi ngi ci jàmm kay aha aha waa minki fàttewu de ak Orange Money sous boo nekk mën naa la envoyé xaalis hankay bàjjen mën na nekk <laughs> waaw gis nga ba Burkina bi Niger Mali Côte d'Ivoire Guinée Bissau foo nekk mën naa la fa envoyé xaalis du am benn problème waaw waa kay mi léegi léegi maa la yónnee sa xaalis amin amin amin mi ngi ka barka waay eh jógal naan sa garab yi xaaral ba ci kanam Nafi dootuma la bàyyi ngay sàgganee sa santé de jugal nga naan sa garab yi yow li ñuy daj hôpital yëpp xam nga ko ak ni nga sonnee woon danga bëgg anticiper sa vie nii jógal naan sa garab yi waay yow. da ngay wax mel ni xale ngay waxalanteel. non yow ngay leer ci man. <laughs> war na ma sam papa moo la yónni fii. Bariso. ça va ça va. bien toogal. ça va. maa ya ngi yàgg si biir. yaay toog. allo. yaay tane. Et toi aussi tu veux t'y mettre. je suis désolé écoute je suis pour nous attendre comme deux grandes personnes. Mhm. je pense que dernièrement ça n'a pas été facile que ce soit pour toi ou pour moi. surtout bi nga l'hôpital. hôpital mais ça m'a permis de voir beaucoup plus clair. Et je ne dëggal peut-être li me doon ressentir par rapport à toi même si musuma la nëbb sama bopp mais fi amatul luñ fi nëbbu toi et moi on s'aime et on le sait maintenant il y a une chose qui est là à savoir il y a un bonheur qui est là devant nous si on le veut bien toi et moi on va y aller ensemble et on va le vivre. J'ai envie. Je veux que tu sois ma femme. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. J'ai envie de me réveiller chaque matin à tes côtés. ku ma ñàkk wuti ma maay oo sama maa yomb lee maa neex a naan. Eh, kii sama père. waaw ah. waaw père naka mu. na ngeen def ci loolu ne. gëj naa la gis tey si jàmm. sant ak yow ah doxe nga naaj de. waaw waaw doxe nga naaj am jël ci ndox mi. ah kii oo sama. moom ah, eh. kii oo sama jëlee naan. ñaata lay jar. ah non yow moom dama la koy may moom grand fukki dërëm donc lay jar waaye yow moom naanal naanal mu des ak jàmm. naanal mu des ak jàmm. waaw ah, waaw naanal waaw naanal mu des ak jàmm. yàlla góor gi waaw sonn nga de waaw masa de waaw moom daa neex naan sax. yooyu Ousmane nii da la man. a ngi. Ousmane da sowee na ma nag. waaw ah nii la dindee nag yëpp la dindee ñëpp jëlal maa la ko ko wallaay maa la ko may. waaw ah. naa la naa waaye nag góor gi. Ah. yow mi sax bëggoon naa laa gis. Hmm. ndax vraiment yéen ku doon les quatre mousquetaires mais fu mu toll nii ma ndax li len dal ci problème ni nek situation yi nek vraiment grave no trop trop trop vraiment yow euh, Tafa Lebu ak ak Ñang euh, balu li len dal c'est trop mais ki nga xam mo len sauver sax te dimbali moy mali marem Marème Lebu waaw Lebu mom vraiment mi nga xam mom mom dal la ci benn saw rucci fu mu tole mom mo ci dal Lebu Lebu mel waaw num ci génne Lebu mo gëna am problème ci ci ci quartier bi gor gor gën ja gis Lebu léegi Lebu ma la gis demb rek asono so xam ma sha allah jek gi mu jek toarka la moko jël fat ko ci kërëm diko ko toppatoo fu mu doon lëmoo mu ngi baraxal madam moom fu mu toll nii la def nek ci la ko neex waaw fu dal na ci de. baax na jere waaw waaw jere jere père. jërëjëf c'est très ci yalla wala paa bi na melo nak legi rek ii ay adna mi adna tëdd de waye day manik kuma rombu romb jël ku ma ñàkk uti ma bu ma ko ma man. ñii laan dama gis dépp buñ toogee ba léegi da nga tekk mbaa jàmm la foofu mbët fay fay xam nga ne sama toogaay bi ma toog du lu ma gënal sama xel ak sama xalaat ak sama xol lépp ngi sama njaboot gi te xaw ma luñ fa nekkee te xam naa ni yow mii ma gis parewoo pour dellu dëkk ba mu bëggoon a jële xale yi andi leen fii lii nag lañuy wax ni jaboot talta tukki te tala dee moo ma dal sonn naa torop te xama ne yàgg nañ ndakaaru te boobu ba léegi waxuma dara dara dara dara lu leer dimbali ma sonn naa de xanaa war nga maa yërëm sax njiraan li nga wax yépp dëgg la yaa ma gën a yey ci xale yi ndax li ngay daj ci ñoom man mii seen bàyyi daju ko ci ñoom seen ñëw fii nag bañu ko waaye danga war a xam ne du liggéey bu ma yor ki ma daan dimbali gisatuma ko bu ñu ñëwee fii ana lan moo leen di yor ba kër gii ngeen nekk nii délai bi léegi mu jeex ñun bu lu ñuy dundee. Hmm. lu ñu dundee donc ak a yomb Sénégal lan ne te lu nit lekk tëwu fi yaa ngi dégg koo si jox juróomi dërëm caaf gerte teg ci potum ndox biiram fees dell yenn saa ñu mbaxal mbaa ñu ñànkata boo ko ko lekk. Roqi Daba man yoruma ay doomi pitax ba ñuy dundee gerte caaf ak ndox. <laughs> kon yaa ngi soog a xam ne yoroo doomi bi tax santal sa jabar. foofa mbët fay. fay. ku dund fukki at lekk fukki at ku dund téeméeri at lekk téeméeri at gémmiñ gu yàlla xar sànni ci dara xanaa gëmatoo yàlla. war ngaa rus de sa yu ñuul yoo yëpp indi nga ko fi. am naanal café gi yow. waaw yow yaatal café. oh. gis nga kii fi jóge maa bépp toroxal bu metti teg naa ko ko lu ne def naa ko ko maa man may seeg ñaa mu mel ni dañ maa dëddaleeg sama sago gisuma dégguma ku dul moom tey Barizo moo teg tànkam ci loolu lépp ne daf may takk. maaman bu ma fenul sama bopp Baye dama koo bëgg waaye tey ma fi toogee di wax ak yow ginnaaw yàlla sooñaa moo tax te ñoom ñaar am na luñ jot a sekk gis nga lu yàlla dogal doomu aadama bi mënu ci dara sa diggante yaa ñaar takk na la mais amul sëy bari mii daf la bëgg li mu daj hôpital yow xamoo ko sax yow ku leen ni sa bonheur nekkul ci ci wetu Bariso man moom sa bonheur rek moo ma moo am important si man mais nit bu dee def lu baax da ci gaaw balay cat di ci dugg bu la yàlla tàccoo nag te feccoo dootoo feccati ba keroog ngay dee loolu rek laa la yëgal maa daal lii baax na danga di gone rek. voilà. fi la sa yaay tëdd. jooyal waaye sa yaay fi mu tëdd nii nga jege ko nii di ko ziar si naa fi mu nekk moom xolam sedd na kuy ci yow te defal nga ko li mu bëgg

Nafi Sonia c'est vrai que c'est bu mu la gën a gore yow ay le camp de ñoom waxtaan nga si ak sa pap awa Cheikh bul ma wax waxu ñoom franchement bul ko boole ci wax ji sarax ma rek ngir yàlla yow yaa gën a xam ne ni Barizo du jël décision boobu te waxtaanu seeg Sonia Nafi xam nga laa bëgg nga xam ko ci buum nga nekk ba tey defal loolu ci sa bopp

projet xam naa bu baax li ngay yëg man bi ma fi ñëwee keroog li ngay yëg laa yëg waaye nag yàlla mooy def choix te def na choix am nii la ko bëggee nañu ko nangu n'est-ce ñu ñaanal ko rek. ndax ñaan ni moo ëpp solo n'est-ce pas bon et toi qu'est-ce que tu es devenu gis tu es léegi médecin Il hmm? y a un macha allah. j'ai grandi hein comme tu peux voir je suis devenu un homme. Jangna, Magna, Nyefena. Bataille. je suis médecin comme tu l'as dit mais j'ai un problème qui me préoccupe quelque chose qui me fait mal là dans mon cœur parce que dama bëgg xale bu jigéen bëgg ko sama biir et il se trouve qu'elle est musulmane et moi je suis chrétien Et dama moto, c'est takk jabar et je veux l'apprendre comme femme. Mais ses parents m'imposent, ou plutôt m'obligent, à ce que je me toupe. Parce que, vu que je suis chrétien, il faut que je me toupe à la Donc c'est un problème qui me préoccupe. Là. D'accord. Ben écoute, euh, gis nga àdduna yàlla moo am nu mu ko tëralee te ni mu ko tëralee kenn mënuñ ci dara xalaat bi ma la ciy jox dafa simple mooy gis nga xale bi ngay bëgg jullit la man sa papa mi la jur jullit la sa yaay jullit la waaye lenn dinaa la ko xamal gis nga diine kenn du ci force nit kenn du ci force nit lenn yow nag yaay def sa choix nga xool li la doy xool li dal sa xel nga def ko parent xale bu jigéen bi itam bu leen mere ndax ñoomit li leen seen diine sant rek la ñu def n'est-ce pas man daal li ma lay wax ne force rien prends le temps de réfléchir magum jëmam lu dal sa xel nga def ko tu as raison tu as parfaitement raison dégg naa li nga et j'en prends acte il se trouve que je suis à un niveau de ma vie où il y a certaines choses que je ne peux pas trop me permettre. Parce que la femme qu'on je lui dois beaucoup. Oui, papa Martin. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je n'ai jamais manqué de rien. le plus moments se il a été là présent pour moi Voilà, ma chrétien j'ai été baptisé communié confirmé Je suis ici, dans le mariage donc tout ça c'est grâce à lui et moi rester dans la religion chrétienne c'est une manière pour de me rendre ko la monnaie de sa pièce donc su ma déggee waxu tuub rek waaw daf may xaw a def loolu daal daf may xaw a ñaaw sama xel waaw en tout cas ne force rien prends ton temps nga xalaat ci bu baax a baax ne force rien dégg voilà d'accord merci beaucoup que je vais... Faut que j'apprenne à t'appeler papa maintenant. C'est mon compagnon. N'est-ce pas <laughs> Merci papa. Merci beaucoup. Entrez. Bonsoir. alors non, je dis-moi sa papa. gis naa ko. fa nañu tout ça il m'a fait comprendre que tel xam ni j'existais Je tax il tardivement à ma recherche mais ce qui me fait mal et ce qui me choque le plus c'est que Penda, ma mère, Penda a perdu la vie en me donnant la vie. Ramna ne sait pas de sa faute. Hein. Mais je lui en veux, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je comprends pas. Parce que depuis ça, il y a un équilibre. Mais il y que je ne sais pas. Je sais pas, Suleiman papa fait. Moi, c'est un papa. Attends, j'arrive. j'y rêve. Papa Nafi Léo, qu'est-ce que tu vas faire Je sais pas. Qui m'a Qui m'a ñoom ñaar yëpp samay papa lañ je sais pas quoi faire Et man comme je mu la mon objectif c'est toi qu'on aille loin foo xamante ne personne ne dira que notre union est impossible. yow kay dire loolu tout ko Yo, tu as des parents musulmans tóobal ñu marié wu. Papa, un J'ai vraiment besoin de stabilité. Et je me dis que c'est trouver le véritable bonheur avec mon manager. Ce bonheur, c'est auprès de l'homme que j'aime. Papa il Dinen donné ma bëgg tak. Et euh, j'aurais beau le nier mais c'est lui que j'aime il est l'amour de ma vie Je moom laa bëgg mënuma ci dara tu es mon conseiller en plus d'être mon ami tu es la seule personne en qui j'ai confiance lu ma mës a def yëg nga ko te ma ci bien aussi j'aimerais que tu fasses autant nga man yow loo bëgg suba ba ngoon maa ngi wax naa ko waxati ko te bis bu ne dama koy répété je ne veux que ton bonheur mm-hmm. waaw loo bëgg maa ngi ci maintenant nag léegi dootuma fi nekk di def gendarme ak justice <laughs> di la sonal parce que loolu weesu nañ ko mais xam naa la am nga xel looy dugg di nga ci xool di ko xool bu baax a baax. donc fofu duma fa werante ak yow mais lenn dong la bëgg aussi nga bàyyi ko xel mooy le cas de ñaw ah si il le faut il faut nga régler cas wu ñaw ndax man duma may sëy ci kaw sëy te yow loolu sa responsabilité la sinon leneen li ci des yépp loo bëgg ànd naa ci ak yow n'est-ce pas voilà. Ah, baax je ferai ce qu'il faut. Papa, ah, baax d'accord ok. <laughs> voilà boy tu as compris toutes les l'histoire voilà en gros. attends si je comprends bien toi tu es le fils de tonton Souleymane le papa à Nafi. fais toi tu es le frère de Nafi <laughs> non les moi Quand nous pendant tout ce temps nous toog fi di wax Nafi matin et midi soir fait on parler de ta sœur à toi <sighs> dis-moi toi comment tu arrives à gérer tout ça nan ngay honnêtement je ne sais plus où donner de la tête entre Dieu, sa papa la ça sa papa je ne sais vraiment pas là je suis perdu de toute façon man je suis focus sur Soukena mon ma j'ai prévu de l'amener loin faut xamante y aura personne qui va douter de notre union nan. Mag je vais la marier et puis voir te dire quoi attends yo, tu es sérieux là je suis très sérieux je te conseille de faire pareil tu l'aimes vraiment et ça se voit marie la nga jaal si leneen frère et toi tu penses que amener Soukaine je ne sais où, la marier, le régler le problème. Et tu fais quoi de ta vie d'ici De ton travail, de ta famille Tu te tëb le rek ne euh, da pour dem boy ça se passe pas comme ça. boy la fois passée quand on était là on ma une galère fii bi nga donne toog On di tu di jooy dama carrément prendre le temps de réfléchir prends vraiment le temps de revoir les gens jugee wax dire parce que ce c'est pas une décision à voir. Donc, donc à la hâte. j'ai déjà réfléchi j'ai pris ma décision. C'est une bonne surprise. Je ne savais pas que tu étais chef cuisinier. Non, pas chef. Cuisinier, ça suffira. Je me débrouille comme je peux. J'essaie de t'impressionner en sortant le grand jeu. Ah, c'est très bon. taksi. Yang si jam. ani ma Kumba. Ma nga fa nuyu. Xalé yi nak? Xalé yaay fa. ma ñëw. que là. بالله لهل ربما خير لك بعنا وفاتني سما خير منها Bentar sih. Nafi bëggoon naa nag ñu waxtaan yow damay jappal ma dara ndax buma sa ñoon li nga tuddu hôpital yépp sa wet lay tok sax ma ñew la def ni ñëpp def mais yow xam nga bu baax sama digënté ak sa papa bañ nak ñew fa di indi ay benn problème te yaangi ngi tëdd feebar moo tax ñëwuma fa benn yoon may bañ nga jappal ma ci dara yow xam nga ni man dama laa bëgg sama xol bi nga sax sama xarit nga te namm naa la trop bëri na lu ma manqué nag lekkatuma ay glace àndatuma ak yow dem restaurant lekkatuma ay réglisse waxatuma benn yoon coppati awma kenn ku ma nekkal di fo di dóor daaxee kër gi trop lii moom mooy li am te yow xam nga ni bu baax man dama laa bëgg dégg naa bu baax li nga wax li nga wax lépp dëgg la waaye lenn rek moo taxoon ma wóolu la dama bëggoon nga may ma sama baat Avec Diwan Décor, votre personnalité devient un style. Des belles des naines, puissants et stylés, des soins qui vous ressemblent. Dream. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Vibe Radio. le nouveau son.